asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaare di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu jéggal defal ñu jàmm defal ñu xéewal yàlla na sunu borom fajal ñu suñuy aajo yi njëkk fajal ñu aajo yu mujj yàlla na sunu borom defal ñu mucc gu rafet yéen ñi xam ne yéenay safoo sunu chaîne bi di Wade TV Pire ñoo ngi dellusiwaat ak yéen. ci vidéo yu am njariñ yi leen di defal di leen ko jaaral ci seen bi di Wade TV piir di leen ñaan yéen ñi xam ni yéenay gan ci chaîne bi ngeen di wéy di abone ngir ngeen mën di jot ci vidéo yi yi ni dugal bis bu ne vidéo mu nekk vidéo yoo xam ni vidéo yu am njariñ lool la nag ñu ngi si ak yéen si vidéo bu am njariñ muy secret bo xamanteni ni day dox ci mbirum karange bo xamni ni defé kenn mënu la liggéey ba japp la sa képp ko xamni ni liggéey na la mom ci boppam dina gis lam koy wañi insha allah dina delu ci mom sa yaram wa dina ni bam xamni ni mi li mu la defoon li mu la don jema def moko ko indil kon sunu mbok yeen ñi xamni ni safo sunu chaîne bi di wad TV pir ñu leen di ñaan bépp jafe-jafe boo xam ni nit am na ko nga jaar ci sunu numéro yi su fekkee da ngaa bëgg a listixaarlu nga jaar si numéro yi su fekkee da ngaa am ay jafe-jafe yoon topp la nga jaar sunu numéro yi su fekkee da ngaa am lanteeg yoon coow topp la incha allah am nañ si ay taxawaay yu am njariñ lool yu gaaw lool mbokk mi su fekkee ni da ngaa bëgg a bayre bu sap-sap am na fi su fekke da nga bëgg karange gu sap-sap am na fi su fekke da nga bëgg tul am na fi yow mi xamni da nga bëgg làpp tàkke tamit làpp takke am na fi yow mi xamni da nga bëgg foqet ngay def mbirum jënd ak jaay am nañ si yu am doole lool yo xamanteni sax bu solo boko yoré allahu lépp yor dina tok. sa tamit dafa and ak bayre kon sunu mbokk yéen ñi xam ni yéene safoo sunu chaîne bi di Wade TV Pire ñoo ngi ñëw ak yéen ci secret bi xam ni moom la leen indil ci seen chaîne bi di Wade TV Pire muy kaaraange gu am doole lool muy photo bii ñu leen di wan lii ngeen ci gis moo tudd max ak max moom yaakaar naa ñépp xam nañ ko boo tegoon bant fii sax bu max ñëwee da koy max léegi mu def ko suuf max daal xam naa ni weñ rek la fi bàyyi sa weñ sax dina si jéem xañ na desi dul man dara waaye lépp loo teg rek mën na ko max ba mu nekk suuf secret bi leen di indil tey ji nag mi ngi dox si max waaye max gi fan nga koy jëlee max gi yaa ngi dem si ab guy boo fekkee max gi max guy gi ba tafu si loolu moom ngay xolli moom lañ lay wan noonu si këyit yi nga am si nu mu toll baax na waaw tey nag ni nga koy jëfandikoo ci wàllu kaaraange la lay wax ba xam ni képp ku la liggéey tànk day niwi ba sa kaw boo amee max gi noonu nga koy wute si guy gi man ngaa jàng faatiha nga tefli ko sa loxo boo ñëwee wut si maxu guy gi ana nag nga koy def nga daal koy def si ndox sangu si juróom sangu ñeenti fan nga koy sangoo incha allahu boko defé nonu noonu képp koo xam liggéey na la dé tanki dina melni lo loo xamante ko wal insha allahu sa nag du man ci yow dara dara dara képp ku la jémal insha allahu dina ko gis nit dé du man ci yow dara di nga dëgër këng sa tamit lepp lo xamni ne ci sunu borom du man ci yow dara sunu mbokk yi li de karange bu am doole lool sa bu yombul lool tamit nit ku ne mën nga ko defal sa boppu sa doo sonn doo si wër ba sonn doo dem si kenn di ko sant mbokk yi ñun ñoo leen baaxe xeetu xam-xam bi xam ni ñoo ngi ko jëlee ci sunu mag ñu baax ñi xam ni yàgg nañu ko jëfandikoo di gis ay njariñ kon sunu mbokk yéen ñi xam ni yéenay safoo sunu chaîne bi di Wade TV Pire ñoo ngi am kontaan si yéen bu baax di am mbégte bu baax a baax a baax di ñaan yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal dàqal leen bépp musiba dàqal leen bépp bala defal leen mucc rafet ñu bokk ko ñun ñëpp ci barke Cheikhul Khadim barke mam Cheikh Anta Mbacke jërë ngeen jëf ba beneen yoon ci vidéo yi ñu leen di indil jërë ngeen jëf